Oustaz ça va naka yi tey benn conseil bu ndaw ndaw laa lay jox euh, nga bokk ko yëpp patriote xam nga dafa am ñoo xam ni dañoo bëgg siiw siiwlu te siiw maanaam dañoo bëgg siiw te siiwuñu dafa am lu lu ñu sumboon yaakaar ni seenum xel yóbbu na leen foo xam ne bu ñu bu ñu attaqué dara nit ñi fekk leen ca ñu sumb ko sumb ko sumb ko kenn fekk leen ca ñu bëgg nag détour ñu bëgg nag wëlbati ko am ñuñ ko sëppi yaakaar ni ñoom dañoo muus wala dañoo am fenn fu ñu toll foo xam ne Sénégal yi tolluñu fa mooy kii nga taf nii gis nga kii su doon yow su ma doon yéen a yéen patriotes yi xam nga suñu borom daf leen a defal lu am solo mooy da ngeen a téye internet ba ba pare bokk ngeen ci ñi ëpp popularité bokk ngeen ci nga xam ni ñu ëpp audience lañ ci internet bi donc am na koo xam ni eh, soo ko xoolee xam ne siiwul day bëgg a siiw siiwlu di wax ay wax yu dul noonu da ngay bañ a taf photoom wala boo tafee photoom eh, nga yàq photo bi ba kanam gi kenn du ko xàmmee parce que euh, su nit waxee dara wax joo xam ne wax ji safaanoo la nga xam ne siiwut nga taf fotoom daal di wax ne moo wax nangam wax nangam daal di joxe aw ñu bëri bëri dañuy bëgg a dañ kumpa dem xoole ji li mu wax dem dugg ci chaîne ba may ko vie te loolu mën naa ñàkk su fekkee nit la koo xam ne siiwul dafa bëgg a siiw siiwlu ci yéen la bëgg a jaar jaar ci yéen ci seen façon tontu yooyu noonu xam nga am na koo xam ne bu la tontoo bu la xasee nga siiw bu la taggee nga siiw yéen nag suñu borom dafa leen a defal loolu dafa leen a defal ngeen am audience bu am doole yéen patriotes yi bu ko defee façon yi nii euh, même boo déggee muy wax dara sax nga bañ ko tontu wala boo ko bëggee tontu nga nga taf photo bi ba pare nga yàq photo bi maanaam nga bañ a feeñal kanam gi wala nga déformer ko wala nga indi sujet bi mu wax nga teg ko ci ko taabal ji daal am na ñoo xam ne dañuy wax nangam ak nangam te bañ a sax tudd seen tur parce que tudd gi ngay tudd seen su ci doon gañee même benn benn nit benn nit boo xam ne day dégg tur woowu noonu dem dem recherché ko ci internet bi dem xooli ko sax loolu yow yaa ngi koy eh, promouvoir te loolu mën naa ñàkk ñii bokk na ci li leen déstabiliser ngeen bañ a taf seeni photo bañ leen ci internet bi lépp lu ñu wax nga teg wax ci kaw taabal ji daal ne am na ñuy wax nangam ak nangam bu ñu ko déggee xam ne ñoom la wax képp ku ko dégg bu déggee wax jooju dina xam ne ñoom ngay waxal wante ku ko xamutoon bañ koo xamee ci yow ku ko déggutoon dañ koo déggee ci yow parce que loolu kese la ñuy wër mais kii xam nga ne bu nekkee fii nii di wax wax joo xam wax ju solul tubéy la wax ju amul bopp amul tub kenn da koy yërëm sax ah euh, finalement da mujj yàgg yërëm lépp lu taq ci moom parce que gis nga mag bu demee ba ressource taxaw ci penc mi dafa aw kàcce teg ci penc mi su boobaa xottu nit moo fa nekk wante dara nekkatu